border crossing muy rek ñuy jàll ci rek frontière yi réewu tugal yi daal dinañu xamal daal ne euh, wa mbir mi wàññeeku na ba téeméer boo jël ñeent fukki ak ñaar maanaam forty two ci rek juróom-ñeenti weer euh, ci rek ci juróom weer yu njëkk euh, ci atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñeent ñoom nag waaye daal dinañu xam ne ba tey nag yi jóge lim buy jógee rek Gambia moom ba tey dafa daal di rek kawe ci rek bu ñu sukkandiku ci data muy rek ab xibaar boo xam ne rek fësal nañ ko Euh, ci rek muy euh, Coast Guard Agency maanaam rek ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, nekk ci pegg tefes yi te nekk di ko daal di saytu ñoom na daal di xamle loolu ne boo xoolee itam nag lu jëm ci ñu jógee nag ci Western African Route yi maanaam ci yoon yooyu bokk na rek ci Gambia ñoom nag soo xoolee mbir mi dafa yokk bu baax a baax ba ci Mauritanie Morocco ñoom ñëpp mbir mi nga xam ne rek yokk na biñ ko doon lim sax ne téeméer boo jël téeméer yi maanaam 100 percent daal dinañu xam ne daal dina agency yi ne ci lu ñu rek daal di xayma maanaam rek estimé euh, téeméeri ju nekk juróom-benn fukk ak juróom-benn ci regular entries euh, daal nañ ko rek euh, amal ci rek jamono yooyu lu ñu daal di xam ne itam nag ne wàññeeku bi fu mu rekk daal di féetoo bokk na rek ci fi nga xam ne rek mooy ci western Balkan ak tam central Méditerranée bi routes yi muy rek ci xàll yooyu waaye nag wàññeeku bi ci boppam nag foofu lañ ko nemmeeku waaye ci lu jëm ci yokkute gi daal nañ ci lim nag fi nga xam ne moo di ko lim ci Gambia waaye itam nag ak Mauritania eh, ci rek eh, foofee jàpp nañu daal ne ba tey lu jëm ci eh, nit ñi ñu ngi jël li nga xam ne rek moo di yoon woowee moo xam gaal yi la di dugg di jéem a dugg fi nga xam ne rek mooy ci réewu tugal yi muy rek ci European countries yi bu ñu sukkandikoo nag ci boobu la déeta European Union daal di rek fësal ci lool mi ko uh, ñu ngi daal di lim ne Gambie bokk na ci réew yi nga xam ne ba tey moom donte ko sax war nañ nañ ne am na benn report buy wane daal ne mbir mi wàññeeku na ñuy cross border yi di dem tugal moo xam irrégular border crossing yi waaye bu ñu ko xaymaa Gambie moom ba tey dafa gën a yokk uh, kon dafa mel ni am na réew yoo xam ne ñu ngi wut solution ci uh, mitigate maanaam wàññi wala xeex mbiru migration waaye dafa mel ni Gambie donte ko bu fekkee ñu ngi koy wut sax mbir mi amagul impact ndax ñu ngi wax ne ba tey mbir mi ndombas si dafa gën a dafa gën a xaay dafa gën a yokk waaw ah, mu yéeme lool loo ci réew lu ko yóbbu kanam ndaw ñi lañ yaakaar ñooy kilifa yi léegi ah, xam nañ ne ah, baakwee bi ñi ci ñàkk seen bakkan bari na surtout weer yi ñu génn nii xibaar bi ni moo ñëwee ni ñu ko déggee ak ñu nekk si jafe-jafe dafa bari lool. moo tax ñu bari jël nañ seen matuwaay pour gis lan la ñuy def ba mun koo fanqa mbiri wàññeeku ñun nag soo xoolee ci réew mi fii luñ xamee ci poros booda maanaam suñ frontières yi ah, mun pour sàmm ko lu jafe la waaye waxanaa ko fii ci gannaaw ah, loo xam ne dina mun a doon saafaral ah, jamono ji ñu ngi ko waajal pour yóbbu ko si pencum ndawi réew mi mooy ne ay ndaw yi ñoo mun a jëlee fii yóbbu leen ci réewi Spain di Espagne ci loo xam ne ku ko jiitee di ambassadeur at large his excellence pa pa seeni baaj yi ñu xamee ko ci Obama gom naa ne loolu bu dey nangutoo am na fa ñu taxawal ko dina ñaax ndaw ñi ñu wàññi back way bi nga xam ne dinañ mën a dem Spain liggéey fa ay juróom benn weer ñe yi nine months nga dellu si fii sa réew soo amatee liggéey ba daanaka dem ñëw la contrat la moo nekk te yëpp liggéey bi dañ laa fay tam xaalis bu takku loo xam ne ah, dina mun a wàññi yoon i back way bi loolu gom naa ne bunta la loo xam ne suñ si taxawee te nguur bi tam war na see gën a jàppa ngir suñ ndaw yi ñu mun leen a sawee ngir ñàkk a bakkan lu tiis la mm. te yu mel noonu lim mun a jur ëllëg euh, njëriñ si njëriñ lu bari la mm. ah, dafa daw yaram torop. ngok ñu wax ci leneen ki fi nekkoon jëwriñal